it ànd ci ak Ndeye Ba ba léegi nag wetu ci benn yoon dañ cee ànd suñuy partenaire nes tuuti rek ma bàyyi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi ñu daal di présenté wu ma dikkaat ak nuyu nañ la ah, ñu ngi lay fay soxna joor euh, euh, euh, Ba ñu ngi lay nuyu tamit di la ñaanal jàmm di la wax ajjuma mubaarak jërëjëf di la ñaanal jàmm ak tawféex di nuyu tamit mhm. Ndeye Ba le Ba ba pilis ba. billaay sama doom baay égal ba ba <laughs> mais ñu ngi leen di bëggee di la ñaanal jàmm tamit di ñaanal kilifa diine yeeg kilifa aada yi ci réew mi di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lu jara ñaan la ci réew mi mm-hmm. ndax euh, jàmm ci la lépp xaj ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi tamit nuyu suñu sponsor ku ci mel ni King Cosmétique mm-hmm. ñoom ñi nga xam ne indi na yeneen yu bees daanaka nag yi ñu indi nii gis naa ci ay saabook bu nu def ay moutarde ak ay kii. boobu moom xam naa ku ko sangoo. <laughs> mooy benn damaa juum bu am ay fruits. waaw moom am na ay fruits de. waaw yooyu ku ko sangoo di nga mel ni fruits. di nga rafet macha allah dëgg Euh, tamit di nuyu waa seen bat nga xamante nii tamit ñoom ñoo yor batiment yu baax yi. Mhm. mën a tabax trop. di nuyu kilifa diine kilifa aada yi ak ñi nga xamante nii ñooy topp Tacko TV. Mhm. di nuyu tamit tons si moom koy nuyu di ko bëggee chaque guddi dinañ gisante ñu kii ñu di encouragé ku baax la. di nuyu tamit euh, ñi nga xamante ni ñi ngi ñi ngi ngi ci prison yi. ñoo nit mhm. dañuy soxla. ñu leen di wéttali aussi. yàlla ñu bale nan ba lan leen baax yàlla na leen yàlla génnee fi nu ne. ñu am liberté. di di di ñaanal tamit way dawlu yi. Mhm. yu si am solo la tamit comme ci àjjuma ji nii ñu ngi leen di ñaanal. Mhm. Euh, di leen wax yàlla na leen yàlla xaare àjjana ñi xam ne nag dañoo am problème na ko ci yàlla saafara. toog yàlla na yàlla <laughs> la. waaw fay nañ la Dior maa ngi nuyu laay di nuyu Dior di nuyu waa rési bi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi. gannaaw ba ñu nuyoo rek dañuy dikkaat ak yéen suñu plateau bi nga xam ne rek tey dafa daal di gën a tarkaala ndax gannaaw bañ ci ànd waa King Cosmétique nekkee ca marché Zinc centre commercial Hadija ñoom ñi lay nag dañ tey dañu indi lay ay produits yu bees comme ni nga ko mhm. waxee gis nañ ci ananas waaw yooyu dafa baax si ay lépp produit tey ñu li nga xam ne rek moo di gamme Rosita bi nga xam ne rek ñu ngi ko defaree collagène ak ay lu ci mel ne ananas bii nag shampoing bi la waaye am na jiw am na li nga xam ne rek moo di crème am na lépp bàyyiwuñu aussi lèvre rose yi nga xam ne laay man soxla naa ko de bii yow non bii yow war nga koo jël nday <laughs> ndax daa baax ci tuñ mhm. mais waxuma nag góor ñi jigéen ñi masque la masque pour tuñ dafay dindi lépp loo xam ne impureté la ci say lèvres dindi der bi nga xam ne rek moo di defar seen bopp daa ba ku leen seen ne gonga dem leen king laay utiliser quoi ba tey baax na indil indil nañ tamit beneen jiw ñu gën koo xam rek ci 3D nano maanaam 3 jours nga mel nu la neex weextaalu daal di belli comme ni ko xale di waxee bilaay ñoom noonu ñoom la ñuy ñun saa su dañoo ah, meilleur indilaat nañ ñu beneen bi nga xam ne moo di moo nekk euh, nekk lait bi nga xam ne à de carotte lañ ko defaree te ku gis carotte gis teint bi mu yor dem leen ngeen seeti ñi nga xam ne rek ñoo di waa King Cosmétique saa su ñi ànd ak ñun ci li nga xam ne rek moo di ay baax baax waaye laay ànd nañ ci ak ñi nga xam ne ñoo di waa Sembat di ñi nga xam ne dañoo meilleur ci ay bâtiment construction li définition yi nga xam ne yaa xam muy carreau muy sanitaire peinture lépp li nga xam ne yaa ngi ko bëgg ci sa bâtiment pour mu mucc ayib demal nga seeti ñooñu laay incha allah danañ ko tabax ba mu baax ndax danoo ay ñoom laa tuddee champion ñoom ay roi des arènes lan ci ci wàllu tabax ci wàllum tabax euh, ba pare dañ lay dañ lay meubleel ci biir muy carreau pour bu yow boo leen joxee terrain waxtaan ba juboo rek ñoom caabi lañ seex ak caabi kon demal seeti ñi nga xam ne rek ñoo di waa tey nag dañuy dooree ak li nga xam ne rek moo di politique parce que situation actuelle bu politique bi nag gannaaw ba ñu nekkee ci assemblée di def lu leen neex <laughs> day gën xëy rek di indi ay ay ay <laughs> mais nag jamono juñu toll nii tey dañuy wax ci li nga xam ne moo di association des maires du Sénégal hmm. seen njiit nag doon nekk ki nga xam ne moo di waa AMS ñu ngay ñu xëcc ñi nga xam ne ñoo bokk ci RLS maanaam réseau des élus locaux bi nga xam ne rek Ousmane Sonko daf ko daal di créé ak ay ñooñam mhm. ba Ousmane Sonko ndekk njiit mais ñoom waa AMS association bu baax bi ana lan ngay sànni ci loolu li ma ciy sànni bariwul xam nga ñoom daanaka politique moom boo nee politicien mhm. boo nee politicien rek jarul leneen li jarul nga ko teg ay politicien la mhm. léegi nag tey bu ñu demee ñoom ci yeneen camp yi pour indi ko seen kii day mel ni kuleeg jaalo rek. Mm, dëgg ñu naan la kuleeg xamee naag jaalo. Mm-hmm. waaw kuleeg jaalo ñaari équipe yu den doon lan mais dañ doon reyante mais bi ñu demee ba ci dernière fin yi danoo mujj juboo des nekk benn équipe. Mm-hmm. mais àdduna bi Sénégal fii bu nu nekkoon benn ñoom ñëpp ñu déggoo ci benn mbir. Mm-hmm. Sénégal dina dox. mais bu kii di xëcc fii kii di xëcc fii bum bi day teng waaye buñ ca laalee lu ñaw rek day dagg te bu daggee resol la ku nekk mën na laa dal nga gaañu mhm. nan rafetal Sénégal xam ni benn bopp la mënuñu koo xar ñaar du ma sori nag ci ñooñu mhm. ñoo bokk seen benn maam politique <laughs> ñu bokk seen maam politique ndey ana lan ngay wax ci li nga xam ne rek moo di suuf laa ko mën a tuddee de suuf bi nga xam ne ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñi ngi koy ñi ngi koy xëcc ñi nga xam ne rek ñoo di euh, membre yi nga xam ne ñoo nekk ci réseau de élus locaux bu Ousmane Sonko bii di waa Yewwi Askan Wi franchement pa dama ciy wax moom du bëri parce que waa benn Bokk Yaakaar waru ñoo mën a jël di di di suufu waa kii comment dirais-je ñeen Sonko du genre mhm. affaire yooyu noonu comme nu ko laay waxee rek dama ko ci dama ciy revenir dañoo war a manko doon benn pour xool Sénégal pour jëmale ko kanam mais pas mhm. kii di xëcc fii kii di xëcc fii wala ñuy def yenn yoo xamante ne ni mhm. ça ne se fait pas parce que politique moom mooy loolu dafa doy waar la man li ma ciy wax rek mooy l'union fait la force gis nga mm. mbooloo mooy doole te boo leen bëggee atteindre fi li nga xam ne rek moo di seen objectif yéen ñëpp gannaaw yéen a ko bokk mooy jëlee fi li nga xam ne moo di ñoom sax de seen association maire du Sénégal jeexal na wax mm-hmm. kenn des élus locaux comme yéen ñëpp ñun ñoo leen fal ngir nga ne ngeen nekk njiit na ngeen daal booloo rek ñu gis benn association mais moo gën kii di xëccee nii kii di xëccee nee bu fekkee nag li ngeen di xeex demee ba nu fal leen. Mhm. dañuy fiy nekkal seen bopp. ak seeni mbokk. te xamul ni bu fekkoon seeni mbokk kese la ak seen bopp du nu falu. mais nit ñi ñoo leeni fal population bi mooy ñooy fal président ñooy fal ñépp képp ku falu ci réew mi di da nekk fi dara rek. Mhm. nit ñi la. léegi nag yow mhm. bul fàtte nit ñi. li ëpp solo mooy nit ñi maanaam population bi la fal. ak côté bi nga nekkee boo ko defaree keneen côté bi mu nekkee bu ko deferee. Sénégal dina neex. gis nga defar xam nga fu muy commencé ci biir néeg ñëw ci kër mhm. ñëw ci koñ ñëw ci ñëw ci ñëw ci dëkk mhm. wër nag àdduna bi mhm. defar ci néeg lay commencé ñu waxtaane ko def def def def mu def par benn benn mais nag euh, euh, euh, comme que nag ñoom fa toll hmm? Malick ñu ngi lay bëggee bu baax <laughs> ma gis appel bi nag yàlla def na jàmm dama ni nga xaar tuuti après nañ la dugal ma ni tey politique dafa nekk loo xamante nii dafa garaaw dafa garaaw léegi nag ñoom ñoo war a xam ne nit ñi leen fi teg. Mhm. soit mu nekk ñiy xëcc ci opposition bi mi position bi tamit ku ci nekk yaa ngi xëcc. ñu xam ni même bu ñu xëccee kii bu ñëw ci kii yëpp ñoom li ñu bëgg benn benn benn benn benn benn affaire lañ bëgg ñoom ñëpp pour defar Sénégal. Mhm. mais ñu nekk benn defar ko moo gën bu ñu nee maire du Sénégal noonu la. Mhm. léegi maire kay boo nee Sénégal kay jeexal na bu fekkoon da nga ni maire du di Côte d'Ivoire wala Bénin mooy ñëw fii sax ñu mën a lijjanti loolu mais ñun ñëpp li bëgg benn la. waaw léegi kay nan ko waaw mhm. benn objectif jëm kanam. dëgg la comme niñ ko waxee rek mbooloo mooy doole boole leen seen doole ak seeni xalaat bu fekkee rek mooy suñu njëriñ di seen njëriñ ñu gis ci suñu bopp kon da ngeen di def li nga xam ne rek moo di ngeen di jéem a booloo boole seen xalaat mu doon benn ndax lu kenn mën ñaar ko ko daal wallaay dëgg la mhm. ñett du bëre te ñaar a mën kenn loolu na billaay <laughs> laay <laughs> ñu gis ne Massata Samb ak Mamadou Niang di député yi nga xam ne ñoo jote woon ak Amy Ndiaye Gniby ñoom ñi lay nekk dañoo dañoo amoon seen certificat médical ndax xam nañ ne ne dañoo amoon ay gaañu gaañu ci li nga xam ne moo di xeex boobu